jotaayu tawféex la ci ñun jotaayu sant yàlla la ci ñun waaye nag lii mooy jariñu teew daayira ndax bu ñu dee teew daayira lu mel nii di teew ci suñu biir day mel ni Sëriñ Tuubaa mu ngi ci suñu biir te du ko may sax da koy doon ndax firnde lay doon yoo xamante ni du saa su ne ñu gis ko ci suñuy bët zahir mooy lii baatin bi sëñ bi mu ci suñu biir saa su ne waaye lii mooy firndeel ne Sëriñ Tuubaa mu ngi ci suñu biir man na yëgee boobu laay am te njort naa ne mbooloo mu ci ëpp ñoo ma ëpp ak taalibe ñoo ma ëpp ak yëg-yëg ci sëñ bi te li ma yëg lu ko raw la ñu yëg ci sëñ bi te xam nañu wér ne sëñ Tuubaa ci suñu biir jamono yi ñu toog tey kon ñu delluwaat sant yàlla bu baax tey ñaanal sëñ bi sëñ Cheikh Naar ñaanal ko bu baax ak wér ñaanal ko ak gudd fan ndax gudd fan nag ak wéram moo ko may lii kon yàlla yokk mbàkki sëñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla nga wér te gudd fan ndax jéego yi nga dox am na solo ci ñun lool xam nañ dayeeku bu baax. di la ci sant bu baax di la ñaanal nga gën koo mën gën a am ak gën a yàgg Mbàkke Mbàkke yàlla na gudd fan tamit kàddu yi du bëri ndax kilifa bu ni bu tegee ci suñu biir kàddu bu mel te cant rek lañ doon yëkkati ci turu daahira Jazbul Xulub kon sëñ bi dañuy tàmbali suñu kàddu foofu xanaa jox la rek nga dolli ñu li ñuy dolli ñaanal amaana xëy na yéene ci ëppal na lii mbooloo mi bëggal nañ leen ku leen waxal lu gën a yaatu lii waaye xol bu fees ak taalib bi jàkkaarloog sëriñ du mën a wax wax ju bëri te it wax ji amaana mën naa bañ a jub kon ñu dégg lu baax a baax salaamaaleykum. salaamaaleykum mbokki taalib yi maa ngi leen di nuyu bu bëri ak di leen siyaar di leen sant li sëriñ bi wax wala daa doy sëkk waaw li ma ciy gën feddali suñu taalibe ak taalibe bi nga am mu taalibe mu jàppee taalibe jàpp la daal ci lépp ñu góorgóorlu parce que yéen ji bi li ñu seen tubaab yi dafa wax bu ngeen xëyee bu ngeen xëyee jaamu yàlla su ngeen ko ngeen daal di liggéey ndax jaamu yàlla mooy may teraanga ëllëg nit mooy may teraanga nit tey jii kon nag mu sax ci digal loolu nga xam ne moom la sëñ bi digal te jàpp ci te yéen seen bopp ngeen di dimbaleen di jàppalante ku mën a dimbale morom mu koy dimbale ku ko mën a jàppale mu koy jàppale ngeen sax ci loolu loolu sëñ bi waa digal ñu digal rek ngeen di jàppante ak di daal di ak su am lu umpale moromam leeral ko bu umpale ci wàllu tali bi mu sax suñu tali bi nag aussi yéene sunu gàññeelam tur lépp. murid taalibe ñu jàpp ko sëriñ Touba loolu yàlla nañu sëriñ Touba dimbale ñun ñëpp jàppale leen ci ba ngeen def ko na mu ko bëgg ba ngeen amee amee amee yéen itam na ngeen ko bëgg ba am ci loo xam ne foofu leen ko woon yàlla leen bu bari di yéen ndax xéewal yu bari bari bari du leen ko def leen lu dëggee ko yal na leen defal xéwal bu bëree bëri yal na leen dàqal torof torof yëpp dàqal leen njàqare tam sàmmal leen boppam sàmm ci barke Sëriñ Touba waaw rek daa ko ma ci dolli lii sëñ bi njëkk a wax dafa lépp doy na kon nag lii mooy li nga xam ne moom laa ci dolli fas yéene ànd ñun ñëpp góor ak jigéen ñi ak mag mu ndaw nañ def loolu muy seen nekk bi ma nekk nekk ci loolu. seen xel yi sëñ Tuubaa sëñ ndigali sëñ Tuubaa yi yal na leen ci jàppale bu baax. yal na leen may wér. yal na leen gudd fan. kenn ku ci ne la nga xam ne moom la sàkk wala mu yéene mu defal ko ko ci barke Sëriñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf. amiin Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. amiin la ñaan. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا انك من تحب النار الذين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا واجعلنا وانتنا على رسلك تابوا وهابوا صحبه لنا امرنا اصلح لنا امرنا وعلى Amin.